yi doo seen morom quoi. ndax bëre waaw parce que dama ko seetaan mbapatu Ndeye Ndiaye bi maa nga foon bu mu koy jël maa nga foon muy bëri lu leer nañ waaw waaw. mu jël ko nga gëm ni booy bi war na mën a nekk champion. bëri bëri bëri ñu daje saal mel na ko yaa mun ñii mel na ko ñii di la conseillé boobu la taxawal xës mel na ko ay ñoom xës ak ay ñoom père dogal yëpp yaa leen dàq bële suñu lay conseillé bu leen déglu su aduna pir dafa li nekk sa bopp bi balaa ngaa pare mbër bi day pare day toog. moom loolu la wane contre moog a boo ñaa dafa mën a bëre see xam nga làmb yenn saa yi day toll foo xamante ne day am ay day wàcc xam nga ñi la xamul wala ñi la ñi la faralul ñi la faralul dañ lay jéem a découragé loo mais nag instant yooyu nag su nekkee gaynde nga ci ngay war a gën a waaw gën a ñëw ba pare combat yi mu perte dafa desee entraîné man wax naa wax sax ma ne ko booy bi parewul combat yi mu perte entraîné wul entraîné non entraîné na mais dafa des li mu waroon indi indiwu ko woon war a indi gëm nga ne combat du demee noonu. non mun na demee noonu sax mais bëre bi du demee noonu parce que xam nga mun nga entraîné ñëw daanu loolu moom mbër bu entraîné nga daanu même Balla Gaye dafa entraîné ba bëgg a dee comprendre nga mais di nga di nga di sooy perte da ngay avec la manière di nga bëre quoi xam nga Balla Gaye lu muy lu ko booy ñaar daan yëpp dóor na daw jël tànk xëcc xam nga bëri na waaw bëri na mais dafa daanu waaw dafa bëri su fekkee nga xam laam da nga xam ne kii dafa bëri mais dafa daanu loolu la waa mais état loolu entraînement moo koy wane moo moo ko moo koy def combat yi la dafa desoon pare. nekk gox bu ñuy wax Pikine dëkk pikin nga dégg cooy ndaw yi ah Boy Niang war na jël Modou Lo warul jël Modou Lo yow la wax si ñooñ noonu. mais loo mais mais mais loolu loo xamante ne garaawul la ko waa loolu. loolu wax naa ko keroog si benn kii si benn interview comprendre nga Boy Niang ak ak ak kii ak Ama Balde ñoom ñaar ay frère lañu dañoo bokk loo xam ne mënuñu ko séedoo ñoom ñaar. est-ce que comprendre nga dañoo bokk pikin bokk ay supporters boo xoolee mun naa la sax ñu bokk ndey ak bàyyi mais leen lañ bokkul bokkuñu ay compte banque ñuy def boo ñaa ak Ama Baldé bokkuñu ay compte banque mais ñoo bokk lépp seen supporters nii la ñu war a def nii nii parce que nga boo ñaa li mu bëgg ah pour teral yaayam papaam xam nga ak ñi ci xej loolu Ama Baldé bëgg mbër boo gis ci làmb ji comprendre nga teral teral teral njabootam ak ñu nekk ci ginnaaw moo ko tax a jóg parce que laamu dafa métti comprendre nga moo tax nag ñu naan waruñu koo jël ñoom ñaar dañuy daje ji ay yeneen yeneen genre affaire yi mel nii promoteur dina yàgg a waxaale Ama Balde comprendre nga <laughs> promoteur dina a waxaale Ama Balde du jubóog moom mu dem waxaale ak Boy moom wala sinon mu dem waxaale Boy Niang jubóowul ak ñoom moom mu dem waxaale ak Ama Balde parce que xam nga lu koy waral ah dañoo ñoom ñaar ñoo bokk génération. ndax kii waxaale nañu ak Tapha jëlu ko Boy gis nga kii bari naag guy kii bëri guy ah, déggoo li ma la xanaa kanam la jëm ba ba ñuy bàyyi bëri ñoom ñaar noonu lay demee Boy Niang moo daan Balla Gaye Balla Gaye war a bëri Eumeu Sène Eumeu Sène ceega ñoom ñaar noonu xoolal dañoo lii dañoo bokk ay kii ay adversaire ay adversaire loolu day am si làmb day am dañuy toll diggante boo xamante ne yéen ñaar doo too leen mën a doo too leen waaw seen adversaire duñu mën a tàqaloo da bàyyi boo doo waddalee mu for wala nga waddal kee for kii day ñoom ñaar nii la rek nii boo ñaa xool ñi mu bëral yëpp Ama Baldé na bëri ñoom Ah, ah, bal la ñu mbëral yëpp bo ñaar Pas bëri ñoom parce que ñoom ñaar xam nga dañoo ñoo débuté ñoom papatandoo nekk ay morom comprendre nga ba pare ba pare aussi ñoom ñaar tamit dañoo saf mbër parce que xamale ma la yow tey jii bo ñaar tey jii su duggee si làmb su duggee si làmb far la force da ngay kontaan parce que xamale la day animé xam nga dafa mën a fecc daa mën a fecc day animé làmb te waaw dafa dégg su su ne avant su ñëw yaa ma a xam ama balle xam nga kenn dégg fa la fekk baax même bëggul kan la agent ma xam nga ñoom ñaar par force dañuy bugg di bëre dañuy bugg di am ay ay ay combat waaw te te adversaire yi fi nekk ñoom ñaar ñoo seq ay adversaire yooyu mais xam nga lu xam nga luy problème bi ñoom ñaar seen ñaari camp yi ñoo war a ubbi seen xol mbaa ñu mbaa ñuy xam nga mbaa ay mag wax leen ne carrément lii nii mënul ñàkk ñoom ñaar foog ñu bàyyi affaire u kii laa gën a jege quoi kii laa gën a jege rek mooy coow mais loolu coow yaa man pour man lii du coow quoi du coow de xam nga lan la ñàkk a mal mal dañu comprendre mais suñu li ni kanam la jëm suñu ko li kanam la jëm day wolama sen adversaire adversaire ñuy sédo ni kan xam nga boy kii Tapha Ama bal da nako no noo dina bëreeg Boy ñaan te waaw wala voilà bëri nañ ba paré gis nga yaa ngi xam nga Boy ñaan jël na modlo Lo lu Lo lu xew ci combat bobu day bëreeg Ama bal lol force la quoi leg ñaan ñoo est-ce que mën nañu war nañoo ki. ñoo xam nga lu ñu war a def supporter yi gën a mobiliser ba nga xamante ne combat booy Niang soo amee adversaire balaa nga ñëw léegi dañ naan léegi ñee fan la ñuy dugg asa xamala ma la yow imagine supporter a Baldé ak Boy Niang jubal nii war a supporter ji Ama Baldé wala war a supporter ji Boy Niang yow balaa ngaa yeewu fekk stade fees na non loolu pourtant nag noonu la war a demee nag logique laay wax de noonu la war a demee su fekkee lu ñuy woote dëgg la quoi noonu la war a demee noonu la borom xel yi la L'An 2000 di waxal te adduna ku amul ku amul xel rek boo xoosee adduna adduna borom xel yi la L'An 2000 di waxal ndax wax dégg-dégg la laaj te mën a wax mën a dégloo ko dàq nag L'An 2000 ñu jëm si combat bu mag dimanche diggante Sa Thiès ak Reug Reug ma bëgg nga tojal ma si rek tuuti rek diggante Sa Thiès ak Reug Reug non combat la de combat <laughs> koo ne mooy daan da nga faral comprendre nga mais nag man man su ma doon joxe avantage si Reug Reug laa ko jox mais mais du bëri de mais tuuti la ay cinquante ay cinquante virgule xam nga waaw avantage du mot sax cinquante et un cinquante virgule dinaa si teg dara waaw waaw tuuti point cinquante virgule cinq wala quinze wala yooyu wala vingt. na la war a bëri see diggante mu Reug Reug bu amoon ko. mais Sa Thiès nag kaay wala ku ne supporter Reug Reug bu foog ne Sa Thiès mënu koo daan da faral Reug Reug supporter Sa Thiès tamit bu foog ne Reug Reug mënu koo daan non da ngaa faral Sa Thiès xamul sages dafa yor doole ba pare yor vitesse yor vitesse ba pare beure bi dafa gaaw lolou lolou loolu sa way lolou nit mu ne mu ko beure su la waré daan do ko yek sax xam nga kuy daan nak yalla moko xam mais rek rek aussi dafa meuna beure bëre mun pire amul lu ko beure bëre rek amul façon beure bu mudul dul mo tax di nga sa vitesse bob su la lambe ba daj la non dara mun na xew aussi. mel loy tagoto ñu lay to sant yàlla rek xam nga di rafetlu émission bi xam nga di nuyu sama booy bi di ma wooy Martin <laughs> Mohamed waaw Mohamed Martin waaw maa ngi koy siyaar di siyaar waa Joal yëpp di siyaar waa Pikine di la siyaar yow xam nga di siyaar waa Bawol xam nga yëpp maa ngi leen di siyaar siyaar waa Kër Massar sama gars yi nekk si diaspora bi ñëpp sans inspection maa ngi siyaar moo seen bi mooy seenu diaspora waaw seenu diaspora moo tax ñoom Mortala xam nga ñoom Maam Cheikh ñoom ñoom xam nga ñoom seeni xam nga gars yi nekk ñoom ñoom Black Alliance bi xam nga Black Alliance bi nañ nañ nañ cliquer ba pare partager Jokal TV na ngay cliquer ba pare nga abonné ba pare jël lien bi partager parce que dafa war a yaatu quoi waaw non noonu la war a deme mais waa Pikine aussi tamit nañ si jàpp mais ñoo ngi ñaanal aussi ñaanalaat bu baax ñuy tëdd fii feebar yëpp xam nga parce que hôpital doo ko jàkkaarloo xam nga rek yaa ma gën a xam quoi waaw. yàlla képp ku képp ku seetaan vidéo bi nag ñaanal ñi nekk fii. yàlla yëkkati leen ak jàmm ñu delloo seen kër yi delloo seen njaboot maa ngi nuyu sama yaay bu baax a baax depuis Joal xam nga di nuyu sama sœur yi nekk foofu ak sama frère yi xam nga di nuyu famille bi yëpp di nuyu sama sama sama soxna aussi maa ngi koy nuyu bu baax bu mu jàppee ba léegi bàyyiwul moo ma fa di baax aussi moom waaw moom non soxna si moo ngi foofu di baax aussi maa ngi koy nuyu ak famille yëpp xam nga nuyu yaayam xam nga ak famille kaw ba suuf frère mi xam nga waa ginnaaw raay yëpp maa ngi leen di béggee di nuyu waa écri aussi waa écri zap maa ngi leen nuyu bu baax kaw ba suuf lu ko dalee bu lay bëggee bu ñuy wax Cheikh Fall dëkk ginnaaw raay dafa bëgg lan waaw la demee nag waaw mais xam nga rek bëgg bëgg non xam nga Cheikh xam naa ko bu baax a baax xam naa ko baax dama koy dégg si rajo bi sax raay BFM xam nga waaw mais xam nga rek ku la bëgg moo la sonal quoi xam nga tey jii sooy def ay effort wala ngay bañ a daanu pour ku la bëgg la parce que am na ku nekk fee naan ñaw di xaar nga daanu mën a ñaw man moo daal nit ñi su ma amee combat nii soo ma daanee rek jàmbaar nga naan moom waa Pikine booy Pikine ñi ngi xaar sa combat man <laughs> kay rek di wax ni maa ngi siyaar waa Pikine yëpp di siyaar xam nga li ko dalee li bunt Seeraas ba Kër Masaar <laughs> Pikine fu mu zone bi territoire bi ngi ñëpp di leen bëgg di leen ñaanal di len wax mbeuri fi am combat yalla na yalla may ndam aussi xam nga ndax gëna jégué gëna yey comprendre nga aussi nañ gëna a aussi lamb loy gëna avancer muy gëna metti métti avant Ama Boy Niang ay sok ay ñoo ñoko mom comprendre nga ñu looy gën a muy gëna metti gëna la yok effort loolu ñom ñoko mom euh jërë ngeen jëf yéen ñuy mag bi TV di wax ni dalen abonné di bës kon kii lu mu ko xee rek aimé bi l'an la demee nag di wax ni daneen xaar ay émission mag waa diaspora bi yëpp ngi leen di ziar di leen jox seen wàcc waaye du nuyu képp koo xam ne yaa ngi du nuyu ndongo ak doomu ndeyam Lamine maa ngi nuyu ak Lamine ñoom ñaari doomu ndey tey palaasu Lamine ndongo lañu defee kii bi jaxaar a palaasu Lamine maa ngi leen di ñoom ñaar ñëpp di ziar njaxas café di ko ziar baax a baax di ziar Samba Sok jaakat daalu mag bi di ziar Thier di ko a yaa may bégee rek maa lay bégee di la jaajëfal grand Tafa Ndiaye marché poisson maa ngi koy bégee marché poisson yëpp ak frère mi yëpp xam nekk marché poisson ak ñëpp ak ah, di wax ne nag Lamine ko yàlla may jabar balaa koor gi amagul soxna am ah, moo ko jot seddaay bii mu ne nongo la de mais na xam ne jabar seerul aussi jabar seerul Lamine non Lamine balaa heure bi déwén day am anamu ma joxoñ ko non day am mooy ñoo sol naag ba da nga jaar ñaanal yàlla may ko jabar non naa gëm bu rëy bi rek na ko tere am ñaareel yàlla na ko yàlla may soxna seddaay bi jërëjëf waaye jërë ngeen ja